sama idée bëgguma beaucoup wax. nee na idée bëgg koo wax. na si mos la rek. nee na dafa la si mosal rek. de yi dañu gaaw këf. gars yi dañoo gaaw a këf. waaye li ma si xam. waye léegi dal mom nee na li mu si xam. ñom xamoon ka ñom xamuñu ko. ndax dama si gëstu lu bari. ndax da sey gëstu lu bari. damay créer. day créer. ben ministère de souveraineté. ben ministère. de souveraineté de souveraineté. mooy ministère boo xam ni. mooy ministère boo xam ne. presse dafay aju ci président rek. presse day aju ci président rek. mu mu mu ko di di di yi. di jàppale jàkka yi. di jàppale jàkka yi. di dimbali waa daara. di dimbali waa daara yi. ba nu xam métier. ba ñu xam métier. ku jàng ki nekk. ku jàng ku nekk. war mën liggéey. war a mën a liggéey. war war mën faj sa aajo. war a mën a faj sa aajo. ndax nit noonu lay moomee boppam. ndax nit noonu lay moome boppam. dimbali nit ñi. dimbali nit ñi rek. ba nu mën ñàkk jariñoo ba ñu mën a jariñoo ndax loolu. ndax loolu. moom mooy dignité nit. moom mooy dignité nit. waaye nag. waaye nag. di pour sénégalais yi. di pour si sénégalais yi. pour ñu tàllal loxo rek. pour ñu tàllal loxo rek. su ñu joxee juróomi junni. su ñu joxee juróomi junni. ñetti weer ñetti nga jënd ci ceeb nga jënd ci ceeb jënd dawlin jënd dawlin jënd suukar jënd suukar mu jeex mu jeex tàkk nga tàllalaat loxo nga tàllalaat loxo kooku de ci ndóol ngay dëkk kooku de ci ndóol rek ngay dëkk looloo tax programme Macky Sall looloo tax programme mu Macky Sall bëgguma ko woon tudd sax bëgg ko woon tudd sax ndax nit yiw la ndax nit yiw la waaye bu njëkk waaye bu njëkk dafa ne woon ci yoonu yokkute dafa ne woon ci yoonu yokkute

bay waa jeexal bay waaja jeexal gëm naa ni jeexal na gëm na ni jeexal na mu ni léegi dama koy def juróom-ñetti fukki junni mu ni léegi quatre cent mille laa koy def da koy def cent mille quatre cent mille quatre kon nit ñi dañu gën ndóol kon nit ñi dañu gën a ndóol soo seetee loolu soo seetee loolu soo jëlee famille bi nekk soo jëlee famille bu nekk Sénégal lu mu tuuti tuuti Sénégal lu mu tuuti tuuti famille boo jël. famille boo jël. fukki nit a ngi fa. fukki nit moo ngi fa. kon ñeenti million wu nit. kon ñeenti million wu nit. ñu ngi ndóol. ñu ngi ndóol. ndóol gu métti. ndóol gu métti. moo leen ko teg. moo leen ko teg. ndax fajul seen. ndax fajul seen dara. kon nag. kon nag. joxe bi. joxe bi. ñuy tàllal loxo. ñuy tàllal loxo. du faj. du faj. dangay seet ñu ndóol. da seet ñu ndóol. famille boo gis. famille boo gis. nga seet ka fa am doole. nga seet ka fa am doole. ka fa am xam-xam. ka fa am xam-xam. ku fa mën jàng métier. ku mën a jàng métier. ku noo dimbali si jàngam. koo mën a dimbali si jàngam. mu jàng ba pare. mu jàng ba pare. yor famille ba. yor famille ba. jàppale ñeneen. te jàppale ñeneen. si famille ba. si famille ba. ñooñu jaar si tànk kooku jaar si tànk kooku. kon loolu wàññeeku. kon loolu dana dëj si Sénégal. waaye séddale. waaye séddale. ay juróomi junni. ay juróomi junni. du fi jëlee ndool. du fi jëlee ndool. na nga ma si ñaanal bu baax na nga si ñaanal bu baax. ndax ñor na ma lool. ñor na ko lool. bëgg naa réew mi bëgg réew mi. waaye loolu. waaye loolu. na si ànd bu baax a baax na si ànd bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Gaye jërëjëf.